yàllaa lay dimbali rek nga am ay invité yu mel ni Cheikh Bara ñëpp tey seen téléphone yi <laughs> nga gëstu plus deux minutes ñu nuyoo te Cheikh bi waxagul. <laughs> taw Cheikh bi waxagul noonu la demee ah du dëgg. Euh, ñu jàll ci beneen point bi. alors gisoon nañu son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye demoon Makka. Euh, seeti bi ngay ñëw ci. ah kon ñëw nañu demal demal demal. bi mu demee Makka nag gis nañ ni euh, moom buur bi na ko waxtaan ak moom ay coopération yu am doole waaye itam dem li nga xam def umra moom ak madamam bi mu jógee foofu itam enchaîné dem Turquie donc dañuy def ci Makka bi mu nekk image bu xam ne ñëpp rafetlu nañ ko image bu nice la avec suñu président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ayca euh, thème bi bi njëkk jàll dañ ci fàtte. jox invité bi mu yëy ci yàb bi xam naa cheikh bi moom euh, comprendre na exactement la mooy concept émission bi euh, duggaguñu ci plateau bi nuyooguñu waaye li nga xam te ne moom mooy rubrique rajo defe naa cheikh bi miin na ko euh, dañ ciy def ay question réponse yu rapide rek yoo xamante ne da nga ci yëy yàb ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi kilifa gi demoon na ci fi nga xamante ne moom mooy dëkk bu sell bi lan nga ci ci ci sànni si kàddu waaw ah, loolu am na solo parce que même bu dul nekk président de la république sax mm-hmm. Euh, maanaam dem màkka siyaara ji yonante bi sallallahu alayhi wa ak euh, barab yu sell ya fa nekk loolu dafa mhm. nekk loo xam ne sénégalais bu nekk yaa ngi koy ñaan mhm. mais tukkeem bi dafa bokkoon ak euh, dem pour lëkkale réewum Sénégal ak réewum Arabie Saoudi mhm. ci ay loo xam ne dafay concerné wàllu développement parce que bëri na fii ay projet yoo xam ne tey saoudiens yi ñoo koy liggéey ñun ak saoudiens yi dañu xaw nañoo nuróole tuuti mooy ñun dañu am projet deux mille cinquante. Mhm. ñoom seen projet defe naa mi ngi dem ba deux mille trente. deux mille trente voilà kon euh, mën na fa jël ay références yu bari parce que defe naa ne vingt ans ci ginnaaw. Mhm. Euh, daawoo dégg euh, ñi dem Arabie Saoudi pour affaire wu maanaam visite pour affaire. visite dañ doon dem pour ziare. Mhm. mais réew ma liggéey nañ ko léegi ba développé na ba entreprise ya fa nekk mën nañoo dem ci euh, mën nga leen a jariñoo ci lu bari. loolu tamit dafa bokk ci yéene bi nga xam ne moom la président am ci réewam. Mhm. kon donc loolu rek référence sax mën na ko faa amee. Mhm. voilà. incha allah euh, euh, ma ñu koy ziare bu baax ci li nga xamante ne demoon na ko defi aussi di ñaan yàlla ñun delluwaat fa rek. xam nga fii moom dëkk la chef président foog naa woo woo nga waa senegal yëpp man tax foog naa woo woowee waa Sénégal woowaale ma woo nga ñëpp. woo nga ñëpp ñaanal na réew mi yëpp. waaw Moussa mu ne naa la woo de. ah dem nag boo ñëwee nga sérieux daal. ci sa waaw. c'est très important moom xam naa ne bàyyi naa ko rek xam moom sama sama sama waay la nag chef baa waaw bi bi wax la bëgg man man non moom moom sama waay la tey moom xam na ne moom man man ci kat daa far faru ma ci moom <laughs> dara ah mais mais mais kat yi Cheikh bi Cheikh ah, man ci ah, koy teel a wax en direct. li fi ne yëpp kat yaay borom. waaw lépp lépp fi mu moom lépp concerne ci kadoom rek. yaa ko moom parfum de euh, yëpp yaay borom lan mooy sa problème moom Cheikh bi. amuñu bu ma indi problème xam nga moom musuma lebal benn weer ci benn fan. billaay samay wax bëgg dugalum ko ci boole. Sonko Diomaye daal Diomaye Sonko. waaw non am na ñi dañoo bëgg Diomaye ah. am na ñoo xamante ne Sonko kese lañ bëgg. noonu la di waaw baax na dara nekk alors bijou bi ñu ci topp mooy scandale bi am ci ballon d'or mhm. ñëpp doon xalaat Vinicius jël ko muy joueur Real Madrid mhm. ñu jox ko Rodri mi nga xam ne moo nekk Manchester City euh, parce li ci gën a graaw mooy moom jour jour bi nga ne dañoo waroon joxe ballon d'or bi France moom Rodri ak waa Real yëpp préparé nañ pour dem mais bi ñu amee ay économie moom bi ñu ko ko jox Rodri lañ koy jox waaye Real ñëpp toog beneen bi ci topp mooy Real ñoom lañ jox meilleure équipe Euh, euh, Ancelotti jox ko meilleur coach te demuñu maanaam dañoo gedd ndax moom Vinicius mii lañu waroon jox Ballon d'Or joxuñu ko jox ko Rodri def na débat nag ci monde bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp gisoo lii la bind j'en ferai dix fois plus si le faut ils ne sont pas prêts moom moom vinisis moo ko wax. Aliou wax dëgg la <laughs> fii lan lañu fi tukk na teew ñu nataal. maa la nekk nit ñun moo tax joxuñu la ko. maanaam jur na débat na ne Sadio Mané waroon na kaa jël jël quatrième te boobu période boobu performance am sori ci nga xam ne na ma wax la foofu moom. Messi laa lay tegalte ak crise. Eh. xam nga foofu débat <laughs> mais bii moom ñëpp xam nañ ne moom dëgg yàlla moo ko waroon a jël. non nag sama yoon nekk ci affaire Real xam nga man. ndax yow lan nga. bisu kan nga denc yow gàtt leen door te bis yow seet naa yow doo seet doo ànd ak am demee fii lañ fi dóorandoo Barça ngay ñaawal Abel. Serigne Saliou dafa mosoon wax ne ku ku ku njiit du du du day ànd ak njiit <laughs> fii laa nekk njiit day ànd ak bis nag yaa mën a ceeb. moo seen ci ñan ñooy njiit. ah ñooy njiit. njiit. Hmm. Euh, euh, boo nekkee koo xamante ne. kilifa am ñu nekk ci ginnaaw non foofu la mooy njiit bi. Ah, vraiment Real lay njiit. ah Cheikh bi Real la ma xam nga ñoo xamante équipe boo xamante ne waruñu. Real en temps normal seen sélection ak seen jël bu taxaw rek gagné taxaw nii rek. taxaw nii ngeen taxaw raseloo rek gagné na lii ñun lan la ñuy bokk ci compétition. ñooy njiit ñooy njiit de. Cheikh bi Cheikh bi mais défaite bee passé. non waaw non yàlla baax na. kon nag ma xam ne daf ni daa jural sa bopp. yàlla na ba seetaanu ma ko sax. waaw a ngi ci campagne. abaa di jur boobu metti naan sama del naan xaw ma sama xaw ma lan mais moom <laughs> gis lu mel nii. Cheikh bi nag keroog laa tooñ ba xam ne ma amoon a tooñ. et puis abaa nee ko man moom yàlla dimbali na seetaanu ma ko la ci ci match. ah Cheikh bi ndax da ñàkkoon jot xam naa. da nekkoon ci préparation. daa fekk gàmm ma nekk ci mbedd mi. waaw bu ko seetaan sax keroog dañoo jekk ci galaaj Cheikh bi kaat dañoo jekk ci gàllankoor du du du du loolu asaka la rek. asaka la rek billaahi. quatre. asaka quatre asaka la waaw baa na yow faroo fen yow ku gañ ngay wër. booy laay. Abel kontaan na jour boobu de ah. Abel Barça ndeysaan. la Barça laa ko tooñee woon ndeysaan bu mu baay ma. Euh, ci la bàyyi woon place pour que. ci la fi gëj ci la fi Aïssa Karajo bi ci topp nag mooy euh, dañuy ci sport la ñuy des mais lamb président CNG bu bees ñu naan ko Malick Ngom moom la gars yi tab gannaaw bi wax ji bëree bëri bëri waaw moom la gars yi fal parce que lutteurs yi bëri ñoo <laughs> yi bëri ñoo ko choisir ñu dem nag euh, euh, ministre des sports choisir ko moom Malick Ngom ñu bëri am ci fierté waaye Aziz Ndiaye itam bokk na ci kii bi lu jëm ci wàllu commission sponsoring ak partenariat moom tamit ñu jox ko ci biir CNG macha allah ah, parce que ah nañu euh, essayer de de de li ñu naan euh, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut day tax euh, loo xamante ne mu dafa war a dox mu doxal ko defe naa loolu la njiitu réew mi woote ah ñu xool li nga xamante ne ki nga xamante ne arbitre la muy dox di doxal li nga xam ne moom mooy loi lamb ji di doxal combat yi ni mu war a doxee bu ñu ko tegee président CNG defe naa war na. et puis nag mu gérer sans pression. sans pression sans surtout sans pression parce que ñoom xeex nañ ko ba ñu changé leen ko ngir yàlla ak ngalawaay nañu tege ci li nga xamante ne moom mooy norme yi ak ordre yi leen di teg waaw jiite ay ñoo xamante ne tamit nag et puis nag dafa soxla ko ci mel ni père Bekaay ci ginnaawam bokkoon na ci ñi ko doon xëccoo itam mais père Bekaay moom Malick soxla na ko ci ginnaawam vraiment soxla nañ euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs yi nekk ci ci ci làmb ji yëpp. Mm. defe naa euh, ñoom ñoo ko xeex. Mm. te defe naa ministre bi dégg na leen. Mm-hmm. Ah, te teewlu na leen ci li nga xamante ne moom moo doon seen bëgg-bëgg. effectivement waaw. ate bi ci mooy suñu copain làmb ji nag làmb ji naa ci xalaat non nag man man kii laa mbër laa damaa gàtt <laughs> seet ci meeting bi lu ne lay def. gis naa ñu waaw di di di jaar waaw. <laughs> di dóor. waaw temps nag yaa ngi def bës moom. waaw non temps maa ngi entraîné sax damaa bëgg a jël petit combat yi quoi. petit combat non man nag sama xarit nga. non su ma sañoon doo dem. toog mën naa bëre de damaa gàtt rek. sa adversaire lañ dul xam. ci léegi métti policier. ménacien bi ménacien bi sa sa sa mbokk Pastef la xam nga. anti ma euh, euh, Malick waaw moom moom arbitre waaw. waaw arbitre xam nga kay affaire la bokk. xam nga arbitre sax arbitre moom day sama xarit donte xam naa position ci politique. Mhm. mais nag nekkul woon lu euh, lu mu doxee bu baax a baax. daal parce que mhm. position la mais nag dafa mhm. nekk nit koo xam ne booy fàttaliku. bi ñu dóoree Amath Sène mu naroon a wan na làmmiñ bi. moom mii moo. ko dëppër ñi dindi ko. bu dul woon bi ñuy bëree. bu ko mu daanu. arbitre bi dawoon wëlbati ko dindi làmmiñ bi. loolu moom mii la woon Malick Ngom. Ah. donc euh, su dul woon moom. jour boobu fekkoon amul expérience ci làmb mënoon na taxaw tiim ko di xaar médecin yi ñëw bu boobaa kenn waxatu ko mhm. donc loolu rek mën na ne ne ku xam làmb la yàgg na si mhm. mais euh, fii 2STV bi mhm. plateau làmb la man dama koy moom sama xarit la sama xarit la bu baax a baax dama du ñuy déggante lu bari nit ku am solo la sax te bëgg projet bi te dafa am solo tamit ñi nga xam ne gëm nañ projet bi ñu boole leen parce que ni ñu ciy doxee doxal du bokk teg koo xam ne gëmu ko woon nga adapté ko ci léegi nag dafa am ku nga xam ne bu ñu waxee 2STV wax làmb muy père Mbay Mbay Fall bu Aïda Tigre man man solennellement dinaa demander Malick Ngom mu sollicité ko bu bëggee ak ko même que boole wuñ ko ci premier vice président chargé de lutte avec frappe waaw kon loolu échappé na ma mais en tout cas Père Mbaye Fall moom euh, ku bëgg làmb la te yàgg na ci. te sëggul bëri. mais koo xam ne depuis 92 ñun kereeru Moustapha Gueye ni mu toll ci Sénégal ñu ne yow yaa ko géré. Euh, innové lu bari ci làmb tamit. vraiment jaadu na suñu tabax CNC nga ñëw euh, dugal ci sa loxo daal. bañ a yem ci plateau yi. Mhm. mais liy doxal làmb. ku mel ne Abdou Aziz Ndiaye mi dénk loolu tamit. ci affaire sponsor yi partenariat parce que moom tamit boo xool nit ki ëpp yàlla na yàlla yërëm suñu xarit ba Gaston Mbengue. mais nit ki ëpp lu muy jël alalam di ko dugal ci biir làmb ji. dafay baax tamit ñu koy ndeysaan tey bu doon dudd anniversaire ah, Gaston euh, ñu koy ñu koy fàttalikuwaat bu baax a baax. voilà euh, ñu bëri dañu dul dañuy xam ne euh, dafa am milieu yoo xam ne. nit ñi nga xam ne ay homme d'affaires lañ. am capacité mën a wuti xaalis. mën a ñëw dugal ko ci secteur bi mhm. Euh, ñooñu maanaam nga may leen sens. Mm-hmm. ñu ñu jiite ci dara. loolu dafay am solo. te bañ a mm-hmm. yem rek ci ci biti daal. voilà waaw ah, am na solo. Mm-hmm. li nga xamante ne euh, euh, moom la wax. ñu comme ni nga koy waxee léegi rek Karajo mi ngi may élément bi événement bi nga xamante ne aussi ñu ngi koy ànd ak waa 2STV fii ah muy. calebasse de l'excellence awards dix-septième édition bi ñuy rendre ki nga xamante ne moom mooy hommage à feu Gaston Mbengue ah, wax dëgg yàlla ñoomit ñu koy bàyyi xel di ko fàttaliku bu baax a baax di ko ñaanal euh, fële mu tëdd wax dëgg yàlla yàlla euh, atte ko ci yërmandeem bii bisu démb ci bi ci nag euh, démb ci guddi laa doo ko xam ne sénégalais yi nekkati duñ nelaw démb dañu toog ay trois heures du matin ñu gis ay nouvelles bi circulé comme quoi que ñu bëree bëri suñu maam door laa Abdoulaye ñu bëri di annoncé décès ñu mhm. ci bëree bëri dugal nañ ay statut di ko annoncé di ko annoncé à la dernière minute ñu fake news la am na kenn koo xam ne nag bii ko euh, Lasga Lasga Ndiaye. kan ma euh, euh, Zal maa ngi lay nuyu man moom ma ko yëgaloon sax bi ma romb côté Almadi Zal ak ñoom moo géet ak ñoom ñooñu xeet xeet ah. waaw waaw ñoom dañ ma romb ñu ne ma information bi naa ci xam dara man leen pourtant xaw ma dara mais dinaa leen laajte laajte leen gestu Xadija xoolaat est-ce que naa ma dëgg la ma waat ko ni ko dëgg la Xadija ma eh maa du dëgg de ma waat fii ak suba lu waat rek yow nga revenir ma parce que li ngay wax ni man dama ne ci yoon Lasga moo ko joxewoon ba pare euh, xam nga Lasga uh-huh. di dama lay expliquer dama lay expliquer Lasga waaw parce que du nit buy wax dëgg déjà <coughs> xam nga loolu nit bu ñu ànd ak nit ñi duñu leen wax léegi ne seex koo xam ne da ngay toog ba mu neex la rek yor sa TikTok joxe information joxe information nit ñi tas information bi waa las gaa ka mooy gëm ay waxam <coughs> ba pare moom mu ne baal leen moom mu avoué ne baal leen ma damaa suusoon <coughs> xam nga loolu mu wax rek las gaa loolu mënoon nañ ko cee porter plainte las gaa lu ko saf lay def day xëy di dégg naan bisu ki mu invité woon démb Cheikh Bara Ndiaye la moo tax mu toogee nii moom daal day xëy rek Hmm. yow xam nga ne Lasga bis dina jot. say audio yam ci man. ma ma expliquer la nee naa la bis bu ma la waree expliquer du ma wax sénégalais yi ne du yow yow la. Lasga moo circulé si si bi ku sant waat te xam ko ñu Lasga wëri leen ko bu ngeen soxlaa ku ngeen di porter plainte. porter plainte mais nag moog laay ñoo déggoo ñoo doon circulé information moog laay gay. ah moom daal mu xëyee jox na information ne la yéen waa YouTube yéen ñii seetaan yéen. Lasga la Ouzin Ouzin Keita nag moom bu leen ko toppee wérul. Ouzin Keita yow yow Mouhamed bàyyil waxi Ouzin Keita wérul yéen ñi nekk ci ci ci ci ci YouTube bi yëpp maa leen di nuyu di leen tàllal loxo dama soxla ay kër ngeen egg si 5000 pour débat bi feeg muy commencé Mara di toog ah euh, euh, bi daal continuer yéen yéeg leen tamit nag ani ngeen fu ngeen nekk lu ngeen seetaan. ñëw leen yéen tamit ay Cheikh ñun dañu campagne campagne ba tàmm ay 23 heures ba bu ñu teelee commencé sax nit ñi dañ